allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allahu wallahu akbar allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd ay yéen mbokk julit yi ñu ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala mboole mi xéewal ci moom rek lay jóge ñi ngi seede na moom dong yooyu ñu koy jaamu ñi ngi seede na muhammad moo nekkoon jaamam bu mag ba doon woote ci ñu jaamu yàlla gannaaw loolu ñi ngi màggal suñu boroom màggal gu amul app ñi ngi màggal suñu boroom màggal gu amul fu mu yem ñi ngi seede na moom dong yooyu ñu koy jaamu ay yéen mbokk jullit yi ñi ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla ngalla waay góorgóorlu leen ci loolu ba bis bi ngeen di dajeeg seen boroom fekk yéen a ngi dajeeg moom di ko jébbalul ragal yàlla mooy yóbbal bi gën a wóor boo yóbbaloo yomal qiyaama ragal yàlla mooy la gën a màgg lu lay yeggale ca ngërëmal yàlla ak ajjanaam ya yal na yàlla subhanahu wa taala jagleel ñu ko gannaaw loolu mbokk julit sunu borom yàlla de moo dogal nee na bépp xeet dogal na ci ñoom bis yu ñuy feetu loole na doon dogal boo xam ne dañ koy tudde qadriyan muy lu yàlla dogal ca neexu ko wala mu neex ko am na nag loo xam ne dañ koy tudde shariyan loo xam ne yàllaa ko dogal gërëm ko bokk na lu yàlla dogal bépp xeet bu nekk ci kaw suuf boo demee am nañ bis yu ñuy feet la ëpp ñu nekk ci kaw suuf nag seeni feet ci seeni xalaat dong luñ ko jëlee loolu moo tax ba suñu borom ñun tànnal ñu feet yoo xam ne da ko tëral ci xikmaam tëral ko ci xam-xamam muy ñaari feet bu amul bu ko ñetteel muy feetu tabaski ak feetu korite feetu tabaski mi ngi def ko gannaaw ponk bi ponk bu mag ci wàllu diine ji muy aj màkka iitu korité mu def ko gannaaw ponk ba màgg mooy la nga xam ne mooy la nga xam ne mooy weeru koor su ko defee mbokk julit gis nañu ne sunu borom yàlla subhanahu wa taala moo moom ay jaamam sant leen ne leen yéen ñépp jëkkante leen niir tabbi aljanna gannaaw loolu mu tëral ay façon jaamu nin yoo xam ne ñenn ci ay jaamam rek ñoo ko mën a taxawee bokk na ci loolu at makka ba ba addunay tukki da ngay fekk ne un pour cent julit ñi duñu dem makka looloo tax suñu borom lënkale ko ak jaamu yàlla goo xam ne mboolem kaw suuf ñoo koy bokk mbokk la gën a màgg ci aj makka mooy yowmu arafa suñu borom tëral ko ngir waa arafa mu nekk it goo xam ne nañ cay jaamoo yàlla mooy toroxlul yàlla ak ñaan yàlla am naa ñi nekkul arafa nekk penku jant wala sowu jant ñoom ñépp yàlla boole leen ak jaamu jaamu googu mooy wóor leen bisu arafa ma bal leen seeni bakkaar wóor leen bisu arafa ma jagleen leen la waa araf la waa arafa am arafa boobu di benn arafa ci kaw suuf gannaaw loolu bu ñu xëyee ci suba ga di bis bu mel ne suñu bisu tey bii soo demoon makka lu ëpp ci at gi tey lañ koy def tey la ñuy sànni jamra bu jëkk bu mag ba tey la ñuy watu tey la ñuy def tawaaful ifaada mooy la gën a màgg tey lañ koy def muy yowmul xajjil akbar di xiiwal gu rëy gu yàlla defal ujaaj yi waa ñi ajuwul makka nag ñi ajuwul makka suñu boroom daal di sunnaal fu ñu mën a nekk ci kaw suuf nañ ànd ak waa makka ñoom it dajaloo ci seeni julleekaay daa di bakk yàlla màggal yàlla suñu paree la waa makka yi def di rey ay hëdiyu nañ dellu seen kër ñu rey ko mbokk day lii mooy la nga xamee ni nii la suñu borom yàlla tëral yonent bi lii la ñu digaloon doonte ne ne xam nañu am na ay vidéo yu ay nit di tasaare di wax naan nit ñi bu ñuy taxawee arafaat tey yow bàyyil ba suba nga doog a woor bu ñuy ajul makka tey bàyyil ba suba nga doog a rey ñun day ñi ngi ñaan ku def loolu yàlla nangul la waaye nag nañ xam ne ñooñu di tasaari vidéo yooyu lu tax ñu tànn ci benn vidéo ci benn borom xam-xam buy wax loolu lu tax yeneen vidéo ya ca nekk bari lool ay boromi xam-xam yu màgg ca la nga xam ne moom mooy makka loolu nga xam ne ku mel ne Cheikh Zayd al Bahri nga xam ne mi ngi wax naan téléphone yi dana ma jóge fu ne ci àdduna bi dima wax naan ndax dañuy woor arafat am dañuy bàyyi ba suba maa ngi leen di xamal ne arafat benn arafat la ci kaw suuf maa ngi leen di xamal ne xaj ak makka benn aj la ci kaw suuf boole mi jaamu yàlla yi ñu def ci àdduna bi daa war a lënkaloo ak loolu ñaari arafat amul ñaari tabaski amul mbokk lii mooy la nga xam ne mooy li nekk allahuma niñ ko waxe sànq ñi ngi ñaan ku ko def ku def lu wudul loolu it yàlla na yàlla subhanahu wa taala nangol la ay yéen mbokk julit xam leen ne suñu borom yàlla day subhanahu wa taala bokk na ci ay xéewalam yu mag mooy mu wutal ñu occasion yoo xam ne daan ci yee salaat la nga xamee ni nii mooy suñu diine ji ay yow mbokk julit xamal ne day bisu iit dinañu dajaloo sol yu bees dinañu dajaloo di zikr waaye bokk na ci it ñu dajaloo dundalaat suñuy xol fàtteliku waat la nga xam ne mooy suñuy ponk diine loolu moo tax ba ngalla waay yow julit xamal ne la gën a am solo ci diine la gën a màgg lu la it di fàttali mooy màggal sa borom ak wéetal sa borom yéen a ngi dégg allahu akbar lu bari ci jaamu yàlla yi gëm nañ yàlla penku jant ak sowu jant mais liñ gëmul mooy allahu akbar allahu akbar mooy lan mooy yàlla moo gën a màgg samay waajur moo gën a màgg sama directeur de service sama général d'armée sama président de la république sama bakkan bii yàllaa ko gën a màgg bépp ndigal bu jóge ci yàlla du ma ko wecceeg ndigali kenn bépp tere bi jóge ci yàlla kenn ci jaami yàlla yi mënul tax ma def ko mbokk lii mooy allahu akbar gannaaw ba walilahi alhamd ñu gëm ne xéewal ci yàlla dong lay jóge ñu gëm ne kenn mënuñu koo xañit ku dul moom waaye gëm laa ilaha illa allah mooy yàlla moomu ñu màggal yàlla moomu ñu nangu ay xéewalam yàlla moomu dong moo yeyoo ñu koy jaamu lii moo taxoon yàlla binduñu moo taxoon yàlla indi ñu ci kaw suuf képp koo xam ne nii yóbbaale nga tawxid wéetal nga yàlla bokkaale woo ko ak dara am nga garanti bu wóor ne ajjana mooy sa wàccuwaay yal na yàlla boole ñu ca waaye loo mënoon a def ci leneen i jaamu yàlla tabaxal téeméeri jàkk ajul màkk téeméeri yoon waaye bi ngay dee yaa ngi bokkaale ak sa boroom yàlla subhanahu wa taala araamal na ci yow ajjana sawara mooy sa wàccuwaay suñu borom mu ne xam leen ne la yàlla wax muy dëgg topp leen yoonu seen bàyyi ibrahim moom day musul bokk ci kenn ci ña nga xam ne dañuy bokkaale bàyyi ibrahima moom nga xam ne mbokk julit moom la ñuy fàttali ko taxawaayam tey keroog ci jamono bam nekkee ngën ji jaami yàlla buy dox ci kaw suuf inna ibrahima kaana umma yàlla may ko doom boo xam ne mooy ngën ji ndaw buy dox ci kaw suuf suñu borom yàlla teg ci ñoom ab nattu natt boo xam ne yàlla mu màgg mi nee na natt bu màgg la lu yàlla màggal màgg na natt ba mooy lan mooy ay yow baay bi demal rendi sa doom ay yow doom nangul baay rendi la ba mbir ma ñëwee lu xew ndax ibrahima nekk na di poser question waaw yàlla lu tax may rey sama doom bal déedéet nangu ne na jaamub yàlla la jaamu yàlla mooy nga toppi ndigalam ci li nga comprendre ak li nga comprendre li nga xam ak li nga xamul waaye ba mu demee ci doomam ja sama borom day nee na yow nga tëdd ma rendi la ndax doom ja nekk na fa waaw bàyyi yàlla lu tax muy wax loolu lu tax may tëdd ñu may rendi ban bàkkaar laa def déedéet ndigal la bu jóge ci yàlla dégg naa topp naa loolu rek mooy la nga xam ne ma yor ab julit la ñu cay jëkk a wax moo ko yàlla dana nattu ab jaam yow jullit nga yàlla mën na laa nattoo ak ñàkk nattoo la feebar nattoo la tumuranke nattoo la ay jaaxle waaye gannaaw loolu ngan la waay dellul ci yàlla moomu nangul ay dogalam toroxlul ci kanamam borom bi subhanahu wa taala nee na la ma dogal ci ñoom bañ ko nangoo dama ko remplacer gàtt bu rëy ca mooy am xar mu lay jàngal yow it ndawal julit ngan la waay xamal ne diplôme yi gën a wóor poste bi gën a wóor mooy nga déggal sa borom nangul sa borom wa man yattaqi llaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu man min haythu la yahtasib bépp ndaw boo xam ne nangul na boromam jébbalul boromam jàng ay ndigalam taxaw ci wallahi am na li gën a màgg lu borom doctorat d'état yi ak professeur université yi am am na loo xam ne kenn du ko méngale ak moom looloo tax ñi ngi leen di dénk ragal yàlla moom mooy clé bi gën a sûr bu leen di may réussite adduna réussite alaxira yeneen ci bi alayhi salatu wasalaam nee na juróom ñaari nit daan leen woo keral leen ci kër arsh bu bu ñu woowee imam yu maandu ya ñan cay teg mooy ñi nga xam ne ci seenu ndaw lañ commencé woon di jaamu yàlla yàlla na yàlla boole ca boole bi suñuy ndaw ngan la waaye ngeen góorgóorlu ci loolu xam leen ne it bokk na ci jubluwaay yi gën a màgg ci it mooy delloo suñu yonente salallahu alayhi wa sallam xam ne moom dong nga am droit jàngale jaamu yàlla mbokk ñaata yoon ngeen fi daje bisu aljuma imam bu ñëwee li muy def day yëkkoo min bar xutba doogu julli lu tax ñun ñu ñëw fii léegi daal di julli doogu xutba noonu la ko yonente bi alayhi salaam jàngale lu tax mboole mi julli dañuy nekk di rukoo ko sujud lu tax bu ñuy julli ah ci ci néew kenn du rukoo kenn du sujud nii la ko yonente bi alayhi salatu wasalaam jàngale pourquoi fajar nekk ñaari rakk kese lu tax timis nekk ñett pourquoi gee ñeen nii la ko yonente bi alayhi salaam jàngale yooyu nag mbokk ay base la base la yu lay delloo ci léppi àdduna suñu borom yàlla subhanahu wa taala nee na topp leen yàlla topp leen yonent yàlla wa in tutiuhu tahtadu su ngeen toppee yonent bi rek jub damaa bëgg am réussite sama famille jàngal nu yonent bi jàngale na ñuy yore famille damaa bëgg am réussite samay dëkkandoo jàngal na ko yonent bi jàngale damaa bëgg samay julli yàlla nangu ko jàngal na ko yonent bi doon defee ak màkk gi damaa bëgg yàlla nangu ko jàngal na ko yonent bi alayhi salaam doon defee amul lenn loo xam ne da nga ko nekk ci kaw suuf nga roy ci sunna lu dul suñu borom yàlla defal la ca jàmm defal la ca la nga xam ne mooy aafiya ay yéen mbokk julit góorgóorlu leen ca xam ne it day daa ñëwaat ngir boolewaat xol yi it daa ñëwaat ngir fàttaliwaat julit ñi nga benn ngeen yàlla moo ñu bind bind ñu jaamu ko boole ñu ay jaamu yàlla la gën a màgg ci loolu mooy ko mbokk mooy julli ay yow mbokk julit su ma xëyee suba danaa julli ñaata yoon juróomi yoon mais yow it noonu ngay def booy julli fooy jublu penku ma ni penku laay jublu kon ñu xam ne ñoo bokk benn programme ñoo bokk li gën a rëy li ñuy sàkku muy wane ne kon benn buur boobu la ñu war a jaamu waaye ànd di ko jaamu julli googu nañ ko fonk nañ ko fonkloo njaboot gi suñu borom nee na saxal ci julli digal ko sa njaboot góorgóorlu leen ci rafetal ci wayjur yi rafetal ci mbokk yi rafetal ci jirim yi moytu leen bakkaar yu mag yi ba ca jiitu day naam muy shirk waaye moytu leen njabar moytu leen dem ci seetkat yi moytu leen dem ci voyant yi moytu leen xoyeet ñiy wax ci télé yeeg rajo yi dañuy yàq seen pas-pas suñu borom yàlla du jéggale loolu moytu leen lépp luy jur rey nit moytu leen luy jur ak njaaloo suñu borom yàlla lënkale ne njaaloo ak rey nit ak la nga xam ne mooy shirk bu màgg ba yonente bi alayhi salatu wasalaam am na benn hadis bu muy wax ne amul doomu aadama lu muy def gannaaw bakkaar lu toll ni wëlbati ko waat dem di njaaloo suñu borom yàlla subhanahu wa taala nee ne képp ku ci tuubul day sawara mooy nekk la nga xam ne mooy sa wàccuwaay la ñuy wax ci loolu la ñuy wax ci musiba bu bon bu tubaab bi bëgg dugal suñuy bopp ngiree suñu ndaw ñu toleere ko muy li ñuy tudd ak góor jigéen ngalla way bañ leen ko continue ko bañ ni ñu ko yàlla bind ñun africain noir yàlla daf ñoo bind ñu bañ ko am na ci yay gën a bon yoo xam ne suñ ko waxoon suñ maam yi jigéen yi sax dañ tëj seen gémmiñ daw même ñi ci gëmul l'islam wallahi mooy li ñuy tuddee wàllu lesbienne biñ demee ba adduna bi tasaaroo ca la nga xamee ni nii mooy tey jii mass média yi li nga xam ne mooy ah jokkuwaay yu bëri yi gis nañ façon mbon bu suñuy maam yi xamul woon yépp léegi suñu ndaw ñi xam nañ ko danaa ci profité waale wax wax bokk julit yàlla may nañu xéewal gu rëy xéewal goo xam ne mën nga ko wax muy xéewalu siècle bi muy li nga xam ne mooy portable waaye mbokk xam leen ni jaan ju rëy a rëy rëy la joo xam ne mi ngi nekk sa biir njaboot nekk sa poche nekk sa poche njaboot ngan la waaye moytu leen musibay portable dee leen contrôler njaboot gi la nga xamee ni nii moo nekk ci loolu kenn mënul wax ñaati musiba la ba wallahi même ña ko créé woon boo demee ci Occident da ngay gis ne ñoom ci seen wàllu bopp ñooñu ñun dañoo ko créé mais dépassé nañu amul kenn ci ñoom koy nangu sa doom yor portable loolu ñu bàyyi ci xel bu baax dañuy delloo doomu aadama yi ci la gën a suufe ci ay xalaat da ngay gis ay magi jëmm ñoo xam ne bàmmeel seen digganteeg bàmmeel mais des heures et des heures ñi ngi koy def ci ay vidéo yoo xam ne amul bopp amul geen xoolal li kiy wax xoolal la koy wax xoolal la koy def lan la la jëriñal rasul salallahu alayhi wa sallam nee ne min xusni islaamil mar tarkuhu ma la yaani képp koo xam ne bëgg nga sa diina ñoŋ lépp loo xam ne amul la njëriñ nga la waay bàyyi loolu loolee kon ndaw ñi ngeen bàyyi ci xel bu baax gannaaw loolu mbokk julit bokk na loo xam ne ni it ñi ngi koy tëje suñu xutba mooy jublu ci suñu jigéen ñu baax ñi bi nga xamee ne haut-parleur xewagul rasul salallahu alayhi wa sallam da daan doon xutba góor ñi ba pare war ci dem xutba jigéen ña borom xam-xam yi am nañu ixtilaaf ca la nga xamee ne mooy xutba it ndax ñaar la wala benn la korite gi def naa ko ñaar maa ngi ñu def ko benn suñu demoon ci mazahibul arbaa ñoom ñëpp dañoo dëppoo ci ne xutba it ñaar la la gën a màgg dañ koo xiyaas ci juma am na ñeneen ñoo xam ne nii dañ ne li gën a sax ci sunna yonente bi alayhi salaam it benn xutba la daan xutba allahuma lu dul nag benn xutba boobee da ko daan xaaj bu waxee góor ñi wëlbati ko wax ak jigéen ñi loolee kon ñu xam ne lu ci waay def baax na boo gisee imam buy xutba def ñaari xutba teg na ko ci ay dalil yoo xamee ne nii loolu moo leen doy soo gisee imam bu yem ci benn xutba ngallaawaay it loolu bu ko ayibal ci loolu ngallaawaay yéen jigéen ñi xam leen ne day liñ doon wax sànq mooy Ibrahima yàlla teg ci moom natt demal rey sa doom loolee la doon sabab ba mooy yàlla dogaloon ne benn jigéen bu ñu wax Haajara la yàlla boole woon ak jaamam bu baax wa bi Ibrahim mu ne ko jëlal sa soxna si yóbbu ca xuru makka ba des kilomètres à la ronde doomu aadama dëkk fa booba ismail xamul dara waaye yaay ju baax jooju moo nangu la nga xam ne moom la ibrahima def benn kàddu rek la ko laaj mooy ndax ibrahima yàlla moo la sant lii mu ne ko naam mu ne ko isan demal fa lañ ñu day ana comme yàlla la ko sant yàlla du ñu seetaan moo taxit mu jur doom ju baax joo xam ne keroog bii bàyyi bi ñëwee na ko yàlla nee na ma rey la def na ko if almatu omar yàlla ay sama baay defal li yàlla digaale loolu muy wane ne nga la waay yow borom kër fexeel ba lay def sa njaboot na doon lu yàlla subhanahu wa taala digle waaye fexeel it ba ndigali yàlla yi nga taxaw ci nga la waay moytu leen borom kër jàkkaarloog sa doom bu jigéen mu jël yoonu naari jahannam jël yaram ba xolli ba mu weex tàll futti ay yéreem ngay continuer ànd ak moom di toog di xal-xalee ka ree loole yaa ngi saxal loo xam ne yàllaa ki malaakam ñu ngi koy rëbb mbokku pas-pas jóge na foofee na ngeen moytu ci njaboot gi rawatina yéen jigéen ñi yàlla subhanahu wa taala da nga leen laaj seeni doom yowm alqiyama yàlla da nga leen laaj seeni jëkkër yonent bi salallahu alayhi wa sallam nee ne bépp jigéen boo xam ne nii day fexe na ba matal ay julleem fexe ba matal ay kooram dégg ndigalu jëkkëram sàmmal ko këram bu demee àjjana dañ naan ko bunti yaa ngi nii fu la neex jaaral yal na yàlla boole ci suñu jigéen taxaw leen ci xale yu jigéen yi ñoom ñooy yaay yi ëllëg ñoom ñooy yaakaar yi ëllëg société bu la gën ay yaay moo la gën ab société ku la gën a yiis ay jigéen moo la gën a yiis ay ay société nga la waay bàyyi leen xel ci loolu mbokk julit góorgóorlu leen ñun góor ak jigéen ñëpp nañu góor góorlu waat xam xéewal yi ñu yàlla defal mbokk julit yàlla subhanahu wa taala ay jaamam yu nekk ci kaw suuf bari nañu on parle de sept milliards doomu aadama doomu aadama yooyee ceer ba sax nekkuñu ci lislaam waaye ñun yàlla boole ñu ci muy xéewal bi gën a màgg gannaaw loolu boo leen di déglu rajo yi ak télévision yi xoolal lay xaw Syrie Afghanistan xoolal lay xaw Yemen Palestine xoolal lay xaw feneen fa lillahi alhamdu ñun ñu ngi nii ñoog suñu njaboot ñoog suñuy ah alal amuñu benn problème bu ñu ragal nañu delloo yàlla ci sant yàlla nañ delloo yàlla ci wiital yàlla nañu moytu li xew suñu rajo yi télévision yi mooy xéewal yépp jox nañ ko keneen ku dul yàlla cant yépp jagleel nañ ko keneen ku dul yàlla jàpp nañ ne keneen ku dul yàlla moo ñuy xëccil àddina moo ñuy xëccil àllaaxira moo taxit yàlla subhanahu wa taala léeg-léeg mu dóor ñu benn yar loolee ngir delloo ñu gannaaw xoolal fi musiba yooyu di gën a jóge ci Sénégal ca mooy Ndakaaru xoolal ni ñu yàlla nattoo ñuy dem ba 22 août amuñu ab taw inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mbokk la yàllaa ngi ñuy wax e yéen waa Ndakaaru mere naa leen dellu leen gannaaw loolu rek moo tax yow xale bi da nga ne ma mais Australie Canada ma ngay taw ko dégg bëccëg mbokk ñooñu ay yéeféer lañu sawara moo leen di xaar amma ay julit heure bu ñu jàddee yoon suñu borom mu ne wala nuziqannahum min al azab al adna dun al azab al akbar laallahum yarji'un bépp société bu taxaw naan la ilaha illallah muhammad rasulullah heure muñ jàddee yoonu yàlla yàlla dana leen duma ngir ñu mën a dellu gannaaw looloo tax nga la way nañu yeesalaat delluwaat tuub jëm ci yàlla képp kenn ci ñun jàpp ne moom responsable la ci loole lii mbokk da ngay gis ni moom mooy genn wàllu wàll ci wàllu it xutba it la ca des nag mooy ñu delluwaat ci suñu borom ñun ñëpp ñaan ko jalla wa ala ay suñu borom yàlla jalla wa ala ñu ngi lay ñaan yow mi nga xam ne yaay allah kenn yeeyowoon ñu koy jaamu ko dul yow yaa bind asamaan yi yaa bind suuf yaay borom kursi yi borom arash bu màgg ba amul lenn luy dogal ci kaw suuf lu dul ne ci sa kattan la amul lenn loo xam ne dina am lu dul ne yow yaay ka nga xam ne ni yaa dogal mu am ñu ngi lay naan ay suñu borom yàlla yal nag ñu boole ci sa jaam yi lay wéetal bañ laa bokkaale dara yal nag ñu boole sa jaam yi roy sa yonente bi alayhi salaam taxaw ci sunnaam te def ko ngir sakku sa ngërëm ay yàlla yal nag ñu boole sa jaam yi texe àdduna ak alaxira yal nag ñu yërëmal sunu way jur yi ak mboolem way dawla yi nga xam ne ñoo ñu jiitu suñu njaboot gi yal na nga def suñu xol sedd ci ñoom yàlla nekk njaboot gu tënku jébbalul la comme na la ismaila jébbalu loon suñu soxna yi tamit yal nañ doon soxna yi lu jébbalul nangul ndigalu yàlla na ko haajara nangu woon e yàlla mboole mi xat-xat yi nekk suñu jeunes yi ba tey ñuy jël seen bakkan yi teg ci océan yi ay yàlla yow miy wëlbati xaal yi yal na nga wëlbati naataange Sénégal ba ndaw yi yeneen réew di xemmem ñoom fii yal na yàlla ubbil ñu barkay asamaan yal na yàlla ubbil ñu barkay suuf yal na yàlla boole wàcc suñu xol mboolem ñi yàlla nattoo ñu jiite réew mi yal na yàlla xamloo leen ragal yàlla yal na yàlla dugal ragal yàlla ci seen xol ñu jiite réew mi teg ko fa neex yàlla ndax loolu rek ci la ñu mën a amee jàmmi adduna ci li ñu mën a amee jàmmi alaxira ay yàlla yow yaa moom bunte asamaan yi ak suuf benn toq ndox du ca mën a jóge lu dul sa ndigal yàlla yal na nga wàcc asamaan mu tawal ñu taw yi barke teel yàlla nawet bii day am nga kattan ci li muy yeex yeex nga dabantal ko yàlla yal na ko dabantal ci sa kattan yal na ñu baal ci jéggal ñu yal na ñu may aafiya fi dunya wal axira ibadallah إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد